noo ngi amaat mbégte di yëkkati ay kàddu kàddu yoo xam ne kàddu yi fàttalikuwaat la kàddu yi nafaraat la kàddu yi jàngaat la ci dunduk jàmbaar ju fi nekkoon di ab murit saadix di ko woyofal àddunaam di ku réyoon ab yan di ko amoon responsabilité te nangoo nekk responsable di alxaaji Mouhamadou Lamine Baara ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mbokk yi alxaaji Mouhamadou Lamine Baara le trent juin la fi jóge woon le 30 juillet la fi jóge woon ren jii la bisu tey jii la waat le 30 ñu di ko fàttaliku 2010 vingt 2022 muy fukki at ak ñaar ba mu demee àjjana alxaaji Mouhamadou Lamine Baara mi ngi feeñ jamono diggante 2021 ak 2022 1921 ak 1922 bu doon dund am na téeméeri at ren moom alxaaji Mouhamadou Lamine Baara feeñ jamono ci jëmm ju tedd di a Cheikh Mouhamadul Fadal Mbakke moom Serigne Touba Xaadimu Rasuul nekkoon ñaari xalifa ñaareelu xalifa sëriñ Touba. ñu duppee ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi nga xam ne moo nekk ñaareelu doomu soxna Aminta bokk mbokku Cheikh Mouhamadou Moustapha ndey ak baay diggante boobu na ngeen fi taxaw seetlu tuuti ci mbirum El Hadj Mouhamadou Baara moo nekk. baayam moo nekk ñaareelu doomu sëriñ Touba bu góor di nekk ñaareelu xalifab sëriñ Touba turandoom moo nekk ñaareelu doomu soxna Aminta Lo alxaaji Mouhamadou Lamine Baara nekk ñaareelu xalifab Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke danaa ci ñëwaat feeñ jamono ci atum 1921 jàpp 1922 dundam jëpp ginnaaw alxuraanam xam-xam mu yemale ko ci juróom sëriñ Falilu di ko liggéeyal di ko tarbiyewu bi mu feeñee jamono ba ni mu jaaree ci turandoom ba delsiwaat ci loxol Cheikh Mouhamadul Fadal Mbàkke amul menn xëy mu mës a xëyal boppam wala ngont moom gontal boppam lu dut na ci ndigalul sëriñ Falilu la addunaam sépp da ko yemale ci liggéeyal Cheikh Mamadou Fadal di ko xam ne li sëriñ Abdou Lahad waxoon dal na ko ku liggéeyal yoon wi sëriñ Touba ku liggéeyal sëriñ Touba murit yàlla war a fay alxaaji Mamadou Lamine Baara liggéeyal na sëriñ Touba adduna toll na ci war ko fàttaliku ci ay jikkoom ak melokaanam jikko ji ci gën a rafet mooy tedd ngay jikko ji yàlla defaloon alxaaji Mamadou Lamine Baara mooy dafa rafetaloon ab xolam ba noppi nag yaatal jëfam mu doon koo xam ne néewaane ngay gis nit ku am jafe-jafe ci ay jamonoom te néewu la jafe-jafe yooyu ma amoon alaaji baara moo ko réglé moo xam muy jafe-jafe zaahir wala joj baatin wàcce boppam ba ñépp ñeme ko ñu ne ci apprenti yi ñu ne ci garage mécanicien yi ñu nekk ca bureau yi ca Senelec ñu nekk ca bureau yi ca Sonatel ñu nekk ca hôpital ya ña nekk ci police ya fenn fu ci nekk alaaj baara dafa amoon grand place ngir fréquenté ko ngir néew doole ya fay ñëw ba mën a faj seen yitte ndax nit ki bala ngaa mën a régler problème am problème ba da koy xam alaaj baara daf leen daan fréquenté bay xam seeni problème jóg di ci taxaw dund dund gu sell nekk ak waajuram ba am ngërëmam noppi koo gis sëñ Fallou la mu wax ci moom lu yaatu la lu bari la waaye ngir gàttal rek ndax dañ ko war a fàttali ko bis naka tey alaaji lu jóge fii mu topp magam Cheikh Mouhamadou Moustapha Falilou toppin woo xam ne musta bëgg baat ci wetam musta bëgg a feeñ ci kanamam mësu koo xatal ci dara lu dul toppin woo xam ne samih naa wa atax naa lu Cheikh Mouhamadou Moustapha Falilou wax alaaj baara ànd na ci loolu loolu àndin la woo xam ne ak toppin woo xam ne ku am topp mu mel ne alaaji baara sam xel dana dal toppin wu rafet kenn mus ta dégg seen diggante lu weesu rek dafa exposé woon sëñ Mourou Moustapha Falilou moom des ca ginnaaw bu ñu dendee sax du nangoo sol mbu muy tax ñu nekkee alaaji baara doomi sëñ Fallou déedéet noonu la àndeek moom ba 2000 sëñ mu Mourou Moustapha Falilou wàcc ab liggéey alaaji baara toog nekk ñaareelu xalifa Cheikh Mamadou Fadal ni alaaji Falilu nekk woon ñaareelu xalifab sëriñ Touba ndaw lu nuroo yore xilaaf ak Cheikh Mamadou Fadal gi ànd ko ak ay rakkam yépp ñemeloo leen boppam waxoon ci làmmiñu boppam fu nit yam ci man ñaan naa bu déwénee mu weesu ko ndax tëjalu ma samay buntu kenn wéy nag ci ni sëñ Fallou doon dunde alaaj Baara di ko dunde mooy ki muy xettali xàmmewu ci murit bi ak tijaan bi xàmmewu ci xaadir bi ak laayeen bi waaye xàmmewu ci jullit bi ak chrétien bi waaye doomu aadama rek ni ko yàlla terale la alaaj baara daan terale doomu adama ak fu mu mën a jógee numéro téléphone alaaj baara portable am ci loxoom lay ne ku ñëw mu ma jox la sama numéro privé sama numéro bopp soo ne carte téléphone bi moo lay wuyu loolu doon na xalifa Cheikh Mamadou Fadel may def émission ci rajo Lamfal FM di waxtaan alaaj Baara nag kar sonné téléphone ma ne kooku mu ne alaaj Baara Falilou moo leen góor loolu ak woyof ak encouragé nit ki mënu ko weesu te booba mooy xalifa Cheikh Mamadou Fadel loolu woyof mën mënu ci mënu ko weesu mu nekk 2000 ba 2007 mu nekk xalifa Serigne Touba nag di ki njëkk a wuutu sët bi njëkk a wuutu doomi Serigne loolu préparation la laaj laaj baara doon ko waaye declaration bi mu njëkk a def yaakaar naa ne nit ñi bu ñu delawaatee ci vidéo yi danañ gis lu sëriñ Abdou Samad mu sëriñ son yi bu waxoon bi muy def tël yi nga xam ne moom la jëmale ci penc sëriñ Tuubaa yi ngir yaatal xam ne leen ne ñoo ko bokk sëriñ Abdou Samad noonu na ko ci lañ bokk waaye boole nga ñu ci nit ki nag lim bokk nga boole ko ci day lu am solo moo tax mu ne ko bokk nañ ci nag waaye boole nga ñu ci mu xotti tëli yóbbu guy mbind xotti tëli yóbbu daaru xudóos xotti tëli yóbbu kër sëñ Sohaybu xotti tëli yóbbu daarul minan fenn fu ci nekk mu wan leen ne penc yi penc sëñ Tuubaa la li fi nekk alali sëñ Tuubaa la ñoo ko war a moom ñoo ko war a bokk dajale it nag njabootu sëñ Tuubaa gépp def déclaration bu leer naññi na leen ña ko moomoon dem na baat boobu alaaj baraa ko wax te mi ngi ci vidéo yi ñi ko bokk ñoo fi des ay nit nag lañ bokk dañ ko war di waxtaanee loolee yaatalug El Hadj Mouhamadou Lamine Baara mooy dox ba bisub tey jii ci la daal di taxawale comité d' bu mag Magalu tuuba dem jëli Cheikh Mouhamadul Bachir mu Sëñ Abdul Xaadir teg ko fi yaatal liggéeyub dëkk bi nga gis ne mbooleem li fi nekkoon El Hadj Baara daf ko séddale banqaas kenn ku ci nekk am loo yor yoonu murit wépp gis seen bopp ci xilaaf ak alaaji baara bi mu nekkee sëñ Tuubaa ku ñëw mu wan la ne yow rekk la wan leen nit ne li ngeen may indil moomuma ko daana tax ne bu daayira yi masaa bari day seet kenn ci sëti sëñ Fall doomi sëñ Fall yi ku mel ne sañ Xabaan ku mel ne Baye Cheikh Awa Balla ñeneen ñi mel ne ñoom ne leen eh xaalis bi ñuy andi sëñ Tuubaa ko moom dem leen nangul ko ko yéen ñëpp man ngeen koo nangu su noppee mu def ci compte sëñ Tuubaa gi. defaat beneen déclaration wane ne nañ xam ne jumaa yi ji su melut na jumaa yi madinatul munawara ak màkkatal mukarama sunu yaafus la ndax ña defar jumaa yi madina ak joj màkka ja seen digganteeg yonent bi kenn xamul la fa dox ñu nag suñu digganteeg sëñ tubaa démb rek la te ay nit rek ko defar kon suñu yitte yëpp nañ ko jëme ci luy luy rafetal tubaa kooku may laaj baara ay gone ñëw nañ ci moom moom Cheikh Mamadou Lamine Baara na ko dogama bëgg nga ñaanal ñu dañuy jàng te bëgg ay bourse mu ne leen ay bourse kenn du ko ñaan des koy lijjanti jël téléphone am woo ministre bi allo kooku kan la monsieur le ministre man la Alaaji Baara xalifa Sëriñ Tuubaa kooku àgg suuf mu ne ko dama am ay xale yu nekk fii yow noo tudd mën a diw yow noo tudd mën a diw yow noo tudd mën a diw mu ne ko dañoo bëgg ay bourse ban bourse nga bëgg ku nekk wax boursam mu ne ko kañ nga leen di mën na recevoir kooku ne ko waxtu sàngam nañ ñëw Alaaji Baara rek leen leen loola mu jeex décanté situation Alaaji Baara ci gaawoon sun borom du bàyyi lenn ci àdduna lu dut am fu mu yem kullu nafsin saa yaxatul mawti déggoo woon nag lool faboon yoon wépp def jëwriñ ja cheikh Mouhamadul Muntaxa ginnaaw bu mu jiitalee cheikh Sidiyal Muxtaar mi nga xam ne moo toppoon ci moom ñu tuddee ko baayam ñu ñu màggandoo yarandoo mu def ko jëwriñ ji cheikh Mouhamadul Muntaxa di seen ndaw moom it lii mu yore daf ko apprenti wu ci ay baayam ak ay magam ba suñu borom jox ko ko yàlla na yàgg moom. waaye alaaji Mouhamadou Lamine Baara di jëmm joo xam ne àdduna wares na ko fàttaliku bi jamono tolloo fii ca ginnaaw at yi weesu jamono lëjoon na ci actualité yi xew ci àdduna nguur yu jaxasoo waaye kero ba ci alaaj Baara yëkkatee kàddoom yaakaar naa ne ndam am na ci kooku nguurug àdduna waru koo fàtte waaye nguurug yàlla gi it waruñu koo fàtte te ñoom duñ ko fàtte yal nañu yàlla fayal alaaji Mouhamadou Lamine Baara maa ngi siyaare Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo ko wuutu te bi mu koy wuutu la mu waxoon baayam doon lu leer nañ sa toogaay bii nga togg di sëñ Fallou ak sa toogaay bii nga toog di sëñ Touba su fekkee ne def naa ci sama xel mii wala sama bëgg nga jóge fi ma wuutu la yàlla naa la jiitu dama laa jàpp sëriñ rek di la liggéeyal moo tax tey jii mu wuutu Alhaji Mouhamadou Lamine Baara di dox doxiinu Alhaji Mouhamadou Lamine Baara xeebul kenn boo demee këram ndab la muy sukk téeméeri nit danañ ko bokk waaye danaan fu may fu may dugal sama loxo sax du ne xajal leen ma day booxante rek ba dugg fenn noo ngi koy jaar di jaar rakkam yi topp ci ginnaawam yépp nag ak sëtam yépp di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala bisu tey bii yàlla na dolliwaat di dotti ay xéewal ak i xéewal ay xéewal ay xéewal ci jëmmi alxaaji Mouhamadou Lamine Baara Mbacke Falilou ak ñam bokkal Cheikh Mamadou Fadal seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen di fàttali ko alaaji Mouhamadou Lamine Bara 30 juin 2010 di fukki at ak ñaar ca àjjana yàlla na ko suñu borom dolli ay ngërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.